Ciré Traoré ñu bëggoon la laaj nag ci xale boo xam ne que day saw lal dem ba doon magum jëmm ñenn jàppe ko reewandi ñenn jàppe ko feebar ku mel noonu lan moo indi loolu ndax mën nga ko dindi wala mënoo ko dindi alhamdulilah tudd nga feebar bi nga xamante que dafa bari ci réew mi xale bu saw lal feebar dina ko indi seetaane dina ko indi rab dina ko indi ak li mu mënta doon ku ko am boo ñëwee avant tout dara dañuy seet rab la wala seetaane wala feebar ci simple bu ñu ko xamee ne lii feebar nangam la bu ci yàllaande dinañ ko faju kattanu hmm. suñu borom jërëjëf Sidiki Traoré léegi bu ñu jógee ci xale buy sawlal ba léegi hmm. ak euh, mag muy sawlal ak xeet yooyu hmm. bu ñu jógee ci loolu ba léegi ñu ñëwaat ci xale bu réer ak mu mag mu réer bon nit ku réer moom aywa dañuy xool bu fekkente mu ngi fii dinañ ko xam bu dee nekkul fii dinañ xam bu dee mu ngi dund dinañ ko xam bu dee dundugul dinañ ko xam am nga seet day wane lépp nga xam ko nga bañ a xam ko mais seet du fen ku seet moo fen mais seet du fen de. Ah, seet mooy. <laughs> voilà ku seet. waaw ah. moo fen mais seet du fen. seet en direct. awaay ah, tegtal. léegi. Mhm. demal ma ci Gawsu Sow ñu ko wax Petit Sow. waaw dem na ci soo de waaw loolu leer na. mbir bu métti ñu bari na day sonal góor nag boobu tamit ay nga ci. waaw incha allah dañ ko faje mbir bu hmm. métti moom baaxul ci góor. baaxul ci góor baaxul ci góor. Hmm. mais da nga wax xam ne dafa sonal ñu bëri. ñoo hmm. xam ne xam dugg nañ fa. xam ne ne loolu yombewul noonu. ko bëgg yombal yombul muy ndigg luy métti. ndigg luy métti naa ca saafara. jërëjëf euh, Sidiki Traoré dégg ngeen li mu wax moo ngi leer kon moom noo def ak moom. dañ ko faj. ba mu wér. ba mu wér. wala ba mu tane. ba mu wër carrément. wër pëng am na fa kii am na garab yi nga xamante ne exactement ku ko am. Mhm. boo ñëwee fii su koy yëkkati jox la ko. Mhm. ñetti fan dee ko makk. Mhm. ba ko makara yaa ngi dégg mais léegi hémorroïde nga ne ku ko am. na euh, daw ñëw waaw mu ñëw bu ñëwee su ma la laajtee ñaata at la wala ñaata mois la wala ñaata jour la nga wax ma incha allah bi su ma yëkkati garab bi jox la ko da taw taw ak moom. siti moom xem nga ko xanaa wala. Hmm? ndoxum siti. ndoxum siti dañ ko fajee. loolu moo gën a yomb faju sax bëñ bëñ bëñ bi métti bëñ buy métti waaw bu fekkente ne bëñ bi métti bu fekkente ne am na turu am na turu voilà am na ñi nga xamante ne seen bëñ day am bën bën day am bën bën boobu moom mun nañ ko faj jërëjëf euh, Sidiki Traoré Sidiki mhm. euh, ñi seetaan fi nekk duñ ma baal mhm. fii ñu toog décor bi fii ñu toog dañu ñaan yàlla génn feeg jàmm fii ñu toog boobu fi toogee te amoo fit da nga yox-yoxi fii ñu toog boo fi toogee te àndoo xel mu dal dëgg léegi nga génn abal ñu kiit yii nii mm-hmm. ma gis boo xam ne que ay xaatim la mm-hmm. xaatim yi ñu dessin ci loxo nit mm-hmm. beneen ñu dessin ci nit bu taxaw beneen bi am loon ci dessin beneen ñu dessin ci dal xaw ma tànk léegi bi ngay gisee bi nga xamante que dañ ko dessiné tànk bi ñu dessiné tànk waaw maanaam mooy ki nga xamante que dafa bëgg a tukki ki bëgg a tukki loolu lañ ci ñaanale ci nit ki ki nga gisee dañ ko bindee ci loxo waaw ñi nga xamante que dañuy am du toogu waa bii taxaw noonu. mel na Mickey voilà ki nga xamante ne dafa dem. ba nga mm. xamante ne jóg na. Ah. mu daan loolu lañ ci defal moom mu taxawaat. li li la. der jasid. Eh, ah. lii. waaw ci defal benn téere. benn ci biir. Mm-hmm. ki nga xamante ne du am. boo ko yoree. ginnaaw yàlla tànga jasid baa ngi ci ndox bi. Ah. da ngay am. Mm-hmm. yére bu ñàng. Mm-hmm. takki téere. yére bi am lu mel ne haut-parleur mhm. kii nu mu tuddati <laughs> ko bara wax maa ngi gis tamit benn leget gu nu tiim mhm. leget gu ñàng sax mhm. am ay xaatim leget bi luy njëriñ waaw bari na leget bi bagage commerçant yaa ngi ci biir bagage commerçant yi hmm, commerçant yu ndaw yi wala yu mag yi commerçant n'importe quel commerçant non lii sunguf la sunguf la lii ah, sob naa ba sob lii lii jël nga ko waaw ah, nga xamante que bëgg nga li nga bëgg a def. Mhm. même boo joxee même bu fekkee ne dépasse mille francs la. Mhm. boo joxee téeméer moom incha allah journée boobu dina neex.